gannaaw ñu yow bi ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru màgg yi di weeru gàmmu di ñaan suñu borom li mu làmboo ci ay barke ak njëriñ wala ki leer suñu borom baaxee na ci lu kawe si njort di ñaan yàggal kilifa gu mag gi ci suñu kanam lool mu ànd ak wér ak kàttan looy falal ko yan bi ba mu yàggale ko fu kawe te yëpp yàlla ñu ko ànd ak moom kenn ku nekk ca ci la ko ca war ca nu mu gën a rafete di ñaanal kilifa yëpp ak jullit yëpp di ndokkeel ñëpp gannaaw loolu xam nañ ne ñu ngi dégg muy xeexew bu mag muy guddi gàmmu guddi gi nga xam ne moo tolloog ci biir guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon jamono jullit yi baaxoo di ko màggal saa yu ne muy loo xam ne saa yu ñu ko dee màggal war nañ cee fàttaliku waale war nañ cee defaale ak fàttaliku war cee defaale it jëlaale bind bi ñu mën jariñoo ci suñu tolluwaayu jamono gàmmu sëriñ bu mag bi xamal nañu mooy ak ñu koy defee ak lu ko waral ak lu ñu jariñ wax na ni mawliduhu muazzamu mubaarakun muxtaramu tanzimuhu yanxatimu ala zawi taqaddumi tanzimuhu bi sunnati يقول مع الجنة بازدياد منتي لمخلص معظم wax na ci kon ne gàmm mooy màggal guddi yi nga xam ne moom yonent bi salaas ni woon jamono nga màggal ko loolu muy gàmm màggal yi mooy li nga ciy def lépp na dëppoog sunna nañ ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci moom di fàttali ko ay jaar-jaaram di ko ñafar ak jaar-jaar yi saxaabaam yi ak njëlbeenu xew-xew njëlbeenu lislaam waaye itam eh, di barkeelu ak jeexital ci loolu ngir suñu soppeeku di gisaa suñu gën dëgër suñu roy ko itam ñu gën caa sawar kon ñu ci def lépp day dëppoog day dëppoog ndigal ñu ne ñu tax ñu koy màggal mooy day. xew-xew boo xam ne bu mag fa yàlla la di xew-xew bu rëy ci taarixu doomu aadama nekk guddi gu am barke bu barkeel goo xam ne barke dafa làmbu ay barke jëmm guddi daa làmbu ay barke eh, jamono ju la barkeel la ba nga itam indi barke bu baree bari ci àdduna eh, nekkit lu am worma jam eh, waxtu am worma lu màgg kon loolu ñu waral ñu koy màggal lu màggal ko nag war na ci képp kuy kilifa kilifa yu jiite mbooloo yi kilifa yu jiite mbooloo yi war na ñu màggal guddi googu nga xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane woon àdduna kon lii moom euh, ak la boo xam ne dafa jëm ci ci fàttaliku li ci war a def nag mooy fàttaliku jëmmi xew-xew bi li mu làmboo ci ay xeewal jëm ci way gëm ñépp fa mu jamono ak fa mu ko jële ak lam ko indil ci ay xeewal ak i ak i ak i njariñ loolu lu ñu war a fàttali lu war a fàttaliku la ndax ci fàttaliku googu ci ngay xam ne xeewal bu mag gi am ci guddi gi ba tax ci bëgg di ci sant yàlla di ko màggal kon fàttali googu mooy mooy mooy xamal li tax nii ñuy màggal euh, suñu boroom subhaanahu wa mu dañuy xamal ci alquran ñëw gi yonent bi sallallahu jamono yàlla yónni ko ci xeetu doomu aadama lu mu ëmb ci xéewal ak njariñ laqad man allahu ala almuminina id baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal xikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin ñu yàlla defal ñu xëy bu mag a mag a mag ñi nga xam ne ñoo ko gëm ba mu yónnee ci ñoom ak yonent bu bokk ci ci bokk ci xeetu doomu adama bokk ci xeetu ñoom ñoo ñoo leen feeñ ci seen seen seen seen barab mu ñëw yàlla wàcce ci moom ab téere wax yàlla mu leen ko jàngal ñu dégg mu leen mu leen leeralal xam-xam bi bi nekk ci téere boobu yàlla wàcce ak xam-xam bi nga xam ne moo koy moo leen koy gën jegeel te fekk na la jiit loolu nag ñu nekkoon ci ak réer gu leer naññi réer bi woo woo réer réer bi fës réer boo xam ne ak nangam a ko réer bu mattee matti boo xam ne juróoloon na leen ñu réere seen diggante ak ñu seen boroom ba war ci moom ci wéetal ko ak jaamu ko daawuñu ko def réere yoon yëpp ak maandute ba tax nañ waral di dundante ci seen biir ci maandu ku nekk war maal sa sa moroom ak sa moomeelu moroom defuñu ko woon dañ daan di jalgatante àq eh, di xiiroo ak ngaayoo nekk ci fitna ju rëy rëy rëy loola nag juróom na coono bu mag ak jafe-jafe yu rëy ci waa jamono loolu kon mooy li xewoon bi yàlla di yónni yonent bi sallallahu alayhi muy feeñ ci jamono ba mu woonu lu soppi loolu soppi ko moo tax yonent bi saa sam ne ana rahmatul muhdaa maa yërmande ji yàlla may jaam ñëpp ndax fi ñu fekkoon ci ay jafe-jafe ci réere ku lëndëm ak réere seen borom ak jalgatante ak ak coono yooyu jógee ci lu mel noonu lu ñu génn leen ci yóbbu leen ci safaan bi loolu loolu nekk lu yërmande ju rëy ji yàlla jox xeet doomu aadama yëpp rawatina ñu génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam illaa rahmatan lil alamin loolu lépp nag sëñ bi tënkal nañu ko ci ñaari bayit ci Jazbul Qulub fi mu waxee ne laylatu mawlidin nabi laylatu maxwi riwadi laylatu maxwi taabi wa tuhli zitta asumi biha najaatu wal falaax maa suruuri wan najaax biha rabaaxu wa salaax maa ndifaay fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci dañuy njëkk yi mooy ak yépp wa taasum wa taab daa fekkoon nit nekk ci ak réer ak lu lëndëm loolu mooy a yépp mu fekk leen ñu réer seen boroom ba duñ ko wéet duñ ko jaamu na more réere ak màndu ak yoonu jub ba daawuñu uh, war maalam dañ daan ak ak a tooñ ak man su moroom nobbatu ko loola jur leen nit ñu taq yëpp ak i bàkkaar taq yëpp ak i àq ñu leen topp yoo xam ni day tax ñu looloo ëllëg dem ca safaan ba loolu na moo ñëw di ak taab moo leen jël nag coono Yes. محمد رسول ci jamono bi indi lislaam fekkoon na nit nekk ci ak réer gu tar ak lëndam mu jural leen ñu réere seen boroom réere ak maandu ak njub loolu nag indi coono bi réere yi mu ñëw nag indi lislaam lislaam far lëndam loolu indi fi leer ak njub laabal nit ñi ci bàkkaar yooyu ñu nekkoon ñu gëm ñi nga xam ne gëm nañu lislaam ñu seetal leen wicc ci kéefar bàkk ci takku takk takk takkatale ki kéefar ak tooñ sa moroom ak eh, di yokk ndigalul suñu yi xas dugg ci lislaam rek lépp ñu fekkoon nga de nga nga nga woon ko ci ay bàkkaar ak i àq da koy dokk ba set ba nga set it yow it ku door a ñëw jamono te boo saxee ci li ñu indi it sax ci set googu bu yàlla na tooy itam ba nga jàdd it boo doon siwaatee ci kaw yoonu tuubaat rek daal di setaat kon loolu bokk ci xew mu indi waaye indi na itam euh, réer bi fi nekkoon kon mu jële ko fi indi fi yaay gi ñu wax loolu nag tax na kon coono bi yëpp daal di far kon lam fi fekkoon ci ci jafe-jafe jële ñu ko fi moo tax ci guddi googu ak li ciy juddoo ci diine ji ci wàcce ak téere bi ak ki ci yoon loolu tax na kon ci la ñuy mucce ci la ñu nekkoon ci ay jafe-jafe ak i aku réer waaye ci la ñuy texee ëllëg di texee tay jii waaye ci la ñuy am mbégte bu ëllëgee day tax ñu ko ngir doogu ñu ci tënk ñëpp bu ëllëgee du taxawee suñ kanam boroom lijjanti liggéey day yomb diir bu gàtt rek mu leer nañ kenn ku nekk jàll ci ak njabootam amul mbégte wa ammaa man uutiya fa ammaa man uutiya kitaabahu bi yamiinihi fa sawfa yuhaasabu hisaaban yasiiraa wa yanqalibu ilaa ahlihi masruuraa kon masruuraa jël muy masruur day ànd yi tamit pajug aajo mooy xéwal gi lislaam indi xéwal lislaam ku ci tënku sa mbir day jàpp ni day jub lépp loo nekk di ko sàkku da nga cay am la nga bëgg da ngay am tono maanaam sa dund gépp day am njariñ tey am njariñ ëllëg te da ngay nekk ku baax koo xam ne dara luy jóge bi ak luy xebet dootu nekk ci yow ba nag mboole xeeti jafe-jafe yow waroon a am ëllëg baa ngi naroon ko am tey da nga ci daal di mucc kon xéewal bu mag gii ñu war di fàttali ko ne eh, lislaam mu ñu indil moo tax alquran tudd lislaam muy xeewal al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ni'mati wa raditu lakum lislaama diina kon lislaam mooy diin mooy xeewal bu mag a mag a mag bi nga xam ne moom la yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu indi ko xeet yi mu mu jural leen li nga xam ne moom wax kon loolu ñu war di fàttaliku la saa yu saa yu tolloo ci di fàttaliku dikku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu fàttalikoon fi mu fekkoon jamono ak fi mu ko indi waaye bi mu ñëwee nag indi xewal googu eh, ñu fekkoon ci kaw suuf dañoo def ñaari kuréel ñu ko nangul féete ak seen borom ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci diinul islaam yàlla ñu féeteel di leen teg ci yoon ngir ñettalee mu leen di génn ci lëndam di leen yóbbu ci ak leer eh, ñuy dund dund bu tege ci yoon mucc ayib ëllëg itam ñu nar a ñu war a ñuy texe waaye am ñoo xam ne ñoo gàntu ñoom dañoo gàntu féet dañoo gàntu yàlla féet ak seytaane ànd ak ñoom di kuréel seytaane moo ne di leen génne ci leer leer génn yàlla ba a dugal leen daf leen cee génne di leen yóbbu ci lëndam di leen dugal ci jafe-jafe ak i ak i coono loolu la ñu war a ànd ak ñoom dem ca safaan ma ñaari ko yooyu nag nekk di jaan konte kenn ku nekk di di bëgg jël sa morom bëgg a faaga bëgg a not sa morom bëgg jël mbooloom ma ma ma nekk ca kuréel bee indi ko ci sa bopp. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله أكبر سمع الله لمن حمده حبنا الله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 ثم إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر asalaamu aleykum